doon sant yàlla di ci sallallahu alayhi wa sallam ñu borom bis bi ñu ngi dellu di sant ak gërëm Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasul ñaan suñu borom fayal di sant yàlla ci bis bi bu baax ndax daaw bi ñuy tàggoo

Mafatihul Bichri daayira Mafatihul Bichri bi nga xam ne moom am na liggéeyal sëriñ bi Diop moom Xaadim Njaay ak daayira ñëpp rek góor yi yéen nag dañ liñ daan wax ak jot ndax sof lañ ci def ndax lu ay mag daan def la ci nekk ci fàll xaal bi nga xam ne ñoo fi dem ba loolu yàlla bu def mu kawe jot te am nañ ci yaakaar tey nag bi su xéwal te ni ko sëriñ bi waxee tawabiru bi sunnati yaxuuduna li jannati tekki ni bii diyaar bi dinnati li muxlisin maabud bis bi moom biir bi yàlla nekk bu ko defee ni ko sëriñ bi wax def ko ci sunna comme ni mu ko defee biir bi yàlla ay xéwal lañu yokk kon xéwal boobu yàlla dotti ko ci ñun ñëpp dotti ko ci kàtt dotti ko ci kàtt yi dotti ko ci dëkk waaw yàlla faj aajo wéral cër wajal yi ñu nekk bi ci bu leen di suñu borom ñaan na leen suñu borom defal xéewal ak wër sa ñu amoon borom kër yàlla ñu suñu borom jox ñu amul soxna yëpp te bëgg ko yàlla ñu suñu borom jox di seen borom kër yaa ngi àll yaa ngi kii yàlla sa borom jàppandal loolu ba ñëw jam Pernantinya dia per Ini dia rumit tadi Dan itu juga dia per Ini adalah yang betul undang Jadi saya minta dia orang video belum sentuh ada Tentunya cuma kesini Kami dah kami sentuh Hanya Fatih ini akan Yang menyebabkan fat lu bay am lu jamono yi and ak mom ci fi lu yagg ba ci ni ci muju ci saaru ci abou ci dem ko ñom ñepp ñu leen ci fat rek leen ci ñaara yalla do leen yermal ci fi te ci taxaw ci ko law ndax yalla def ya di bettal ci ndaw ñi xam ñu fi teew ñu ko na sax taxaw toy alhamdulillah yaakaar waaw ci it nag gën a góorgóorlu bu baax gën a jàpp sëriñ ndax moom rek moo am solo jamono jaxasoo yi def taabalisé nit bari bari na waaye nit day am fulla nit day way nit day dëgg li sëñ bi di wax nee talil bud deug futaxal kubul haq ni day bëgg deug bo ko jëtte talab haq da ngay dem wuti deug fa bo dem wuti deug rek ba gis ko wala rek haq da ngay taxtu kubul haq mo nga nangoo ba tax xam wala waxtu xaq mu nga taxaw loolu waxtu tàq ci sëriñ bi day dëgg yu wér yoo xam ni man ñi jamono te war day war xam-xam yu nekkoon ñu àgg ci yàlla xam na kuy sëriñ sëñ baara boo xam ne imaamu nabi maa xaala sa faa'ilu cheikh yaxyi foofu mooy imaam bi nga ci moom sooyu ñu jël ci moom te ku kaw seen yor kooku mooy sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñi nga xam ne yàlla yàlla dafa lëkkale léppam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo nee xaadimu rek rasul nga ci tax boo jógee ci màggal gi rek nga ci waaw yàlla moo defe noonu waaw yërëm kon yàlla na nu yàlla saxal ci bëgg ko ak liggéeyal ko ndax ku ko bëgg dara dootu la sax euh, am naa sa maam ju doon wax benn bayit naan man zaaxa taxma xubbihi ansaahu kullu xalaawati wa maa yahwaahu képp ku mos cafkal bëgg sëriñ bi ak liggéeyal ko dara ci àdduna dootu saxati yow waaw kon liggéeyal ko ak bëgg ko ak dund ko rek am solo ba yi xew ci jamono ak yi nekk ci réseaux sociaux yi ndax damay lu xew ndaw ñi ne ci ca seen pas-pas dëgërul ca amuñu ñu leen di orienté ñu taseeg ñoo xam ni duñu ay nit ñu am solo di wax yoo xam ni luy tegginu teguñu ko ci base bu leer ay nit ñu xamale rek lañu li sëñ bi jàngale ci nahju dafa am kuy wax ni wala xad amuru ala laim wa arifu suma aqulu laa yaani man de damaa romb koo xam ne ku ñàkk solo la mu mu ñàññ ma saaga ma nee na ma jëllale ko ni ah kii de waxuma ndax loolu amul solo te sëñ bi dañ naan wasbir ala sab bi wala tujib ahad nit ki moom ku la mën a wax wax ju ñaaw di la saaga yi boo ko tontu waaw loolu lañu sëriñ bi digal kon ba yi xew ci jamono di déstabiliser nit ñi nañ jàpp sëriñ bi wa euh, ci moom li daan wax naan gëm gëm nit jàpp gëm ko dañ ciy gëm waaw daal loolay kàddu yi ñu ngi sant ñëpp di ñaanal waajur yi fi teew yàlla nañ ko teewee at yu baree baree bare yàlla nañ dem ba yéene yi ñu am ci barab yi suñ borom bi defal ñu ñu kawe njor di ñi may àndal suñ xaarit boso mi wax nañ ko sànq lu yàgg ñoo koy ànd waaw ñoo koy ànd ñëpp ñoom suñu safaa loolu ñëpp rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm yàlla nañ ko fi teewee at yu baree bare kenn bañ a wuute yàlla saafara jàngoroy xoli yi jàngoroy yaram yi dafa ñu wërsëg yu yaatu yu mën a liggéeyale yàlla liggéeyal ci lislaam liggéeyal ci sëriñ bi yàlla nañ ko yàlla defal ci barki sëñ Tuubaa barki yonent bi nga xam ni sallallahu alayhi wa mooy borom guddi gi te nga xam ni sëriñ bi lu mu am ci barkeem ak darajaam la ko amee salaamaaleykum wa rahmatullah